رضيت عن المولى قال الذي رباه jullit ngi leen di wa rahma wa barakaatu nu islaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñaari waajur ñaanal réew mi jàmm kilifa diina yeeg kilifa de ñu leen ñaanal jàmm ñu nekk ba suñu borom fëgg seen bopp waaye ñu nekk sa prison bi suñu borom génne leen ba ñu mbéja fa delloo tey nag ñu ngi fii Touba nekk si jumaa ji jañoo kër sëñ Fallou ñu fas yéene dugg si biir bâche bi léegi ànd ak ay kilifa yoo xam ne wax dëgg yàlla ñoo leen war a waxtaanal waxtaan bu am solo ku si mel ni porte parole yoonu lim yi nga xam ne moom lañ fa jàng muy limu kaamil yi nga xam ne joxoon na ko ndigal pour ñu jàng ko waaye di dégg tamit waxtaanu sëriñ Yuusu sëriñ Yuusu nga xam ne moom moo jiite isbu tarxiya yi waaye tamit di ngeen feggoog dégg waxtaanu porte parole sëñ Mouhamadou Xabaan moom it di ngeen ko dégg léegi incha allahu rabbi ñu fas yéene leen a dégtal li nga xam ni moom la ñu jëlee si biir baas bi incha allahu rabbi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di jégalu ñëpp euh, ñoo ngi toog ak suñuy kilifa am tawféex liggéey bu màgg bi nga xamante ne Cheikh Mamadou Muntaxa daf ko joxe ndigal ci euh, wàccaayu bis bi nga xam ne amuñu lu dul moom mooy bisu màggal gi nga xam ne mooy bisu màggal gi nga xam ne murit bu ne xam na ne yaakaar yaakaari teyam ak yaakaari ëllëgam lépp mi ngi ci bis bi ndax boroom ci boppam moo waxoon ne li mu am lépp ci bis bi la ko am mu bëgg nag ñu di ko waajale alquranul karim te jiital ko ci ak bernde ak xaside yi liggéey boobu Cheikh Mamadou Bachir mi nga xam ne moo yor kàdduk sëriñ bi ba mu toogee sëriñ bi ci njëlbeenu ku weer wi di ko jottali dégg nañ ci ne liggéey bu gën a màgg alquran amu ci si Mamadou Xabbaan mi nga xam ne moom Cheikh Mamadou Fadal sëriñ bi koy liggéeyloo ci taxawu daare yi mu def ci liggéey bu màgg boo xamante ne naw liggéey bi ak gis ko ak kañ ko ci moo tax Cheikh Mamadou Bachir ñëw fii tey mu taseeg bi weer wi teroo ak tey tey jii di fukki fan ak juróom ci safar boo nattee liñ fi jàng ci barab bi ci ay kaamil toll na ci ñaari junni ak juróomi téeméer ak ak ñaar fukk ak lu topp loolu nag liñ jàng tey sax bokk ci leneen lii itam mooy ñii xëy si di jàng si sëñ Mouhamadou Xabaat mi da koo nos ni mu ko nosee mooy Touba li fi nekk ci daara ëpp na ñetti junni daara mu nose ko noo xam ne tey jii dafa naan waa gox sàngam ñooy ñëw masalan tey jii waa Guédé ñoo fi ñëw wala mu ne bis sàngam waa gox sàngam ñooy ñëw foofu bu dee ñeent fukki daara bu dee juróom fukki daara ñëpp dañuy takkatoo ànd ak sëriñ daara yi ñëw taxawu liggéey bi ñun ñu am taw féexi nag doon seeni i Baay Faal ànd ko ñoom war leen taxawu ci luy tax njàng mi mën a sell mën ñu def ko ci dal ak ci nu mu gën a rafete tey jii waa daarul xaddim ñoo doon jàng tey jii waa daarul xaddim nga xam ne euh, jotagu ba sax limu liñ jàng tey waaye li am solo mooy ñu xam ne lu bokkut ak ñaari junne juróomi téeméer yi topp ak lu topp loolu am na lu tolloog juróomi téeméer daara yoo xam ne sëriñ daf leen sas ñoom fu ñu mën a nekk bis bu set dina njàng ñetti kaamel loolu boo ko boolee day doon junni ak juróomi téeméeri kaamil yoo xam ne bis bu set dinañ ko jàngalu bokkul ak fii loolu nag bi weer wi teroo ba bisub tey si Mamadou Xabbaan mii mi ngi koy def mu liggéey boo xamante ne li lim bi di rëy rëy rëy pas-pas bi mu koy defee moo ko gën a rëy ndax alxuraan sëñ Abdou Lahad dafa am lu mu ca waxoon di nga gis ñoo xam ne mën nañoo jàng kaamil yu bëri bëri bëri waaye pas-pas bi moo ko ëpp doole ndax sëriñ bi ba mu demee géej sax mën naa am am na ñoo xam ne daan nañ kaamil te bëgguñu woon mu del si kon jàng alxuraan rek du loolu waaye day waxande wu ñu tëj Cheikh Blanc nee na alxuraan waxande la wu ñu tëj saa boo ko jubee bëgg koo laal dafa naan la laa yamassuhu illal mutahharuun ku laabul du laal nga dem jàpp ñëw bëgg koo laal mu ne la laa yamassuhu mu taxaroon nga dem sangu euh, ñëw bëgg koo laal mu ne la laa yamassuhu mu mutahharuun nga ne ah man sangu naa jàpp naa lépp. di jàngatal mel ni alxuraan dafa day gàntal naan ma laa yamassuhu illal mutahharuun mu ne na nga xam ne laa bu xol moo tax muy wax laa bu xol nag da tuub tuub teewlu sa digganteeg sa borom looy def rek nga def ko ngir jëm yàlla nee na teewlu googu nag ak tuub googu soo ko xasee ba def boo jubaatee alxuraan dootu la wax la mu la waxoon dafa naan la fa iza qara'ta alxuraan fasta'iz billahi mina shaytaani rajim boo nee aouzu billahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim alxuraan moom nee na wuy si na ba noppi boo guddalee ak boo gàttalee loo ci sàkk war naa mën a am kon tey pas-pas bis si Mouhamadou Xabbaan jëlee ndigal lii pas-pas boobu laa bëggoon leeral rek moo tax ma ne ba mu ko jëlee rek la aajoy faju waaw kon jottali nañ ko suñu kilifa yi man si moom sëñ moom lu Basiir mii nga xam ne sëriñ bee koy taxawloo màggal gi dara gënu koo ñor ci ñàggum alxuraan yi ba mu ko leeree moo tax tey jii mu dikkal boppam ngir ngir ngir ngir sargal ak kañ sëñ a Xabaan nii kon nun dongo yi tamit noo ngi feddaliwaat loolu am na lu ma la yalwaan nag nee naa mbaar mi moom ndax daf dañ ko bëggoon ñoom tëjee ko tey bu ñu tëjee liggéey bi tey euh, am na liggéey bu màgg bu ñuy def tamit ci penku jumaa ji nga xam ne naka jekk dañ ko daan def ci biir màggal gi boobu dafa mel ni moo war a tàmbali ma ne ah waaye mbaar mi moom dañuy bañ mu wéet kon nanu sarax bàyyil ñu fi lim bu yàpp boo xam ne bis bu set dañuy wéttali ci alxuraan lim bi nag nee naa ko sartalu ma ci dara lu ñu mën a sarax rek ci ay sëriñ daara yoo xam ne juróomi kaamil sax gën ngaa néew sëñ bas nee na nañ ñu ko dimbalee ñu saxal ko fii mu doon barab bii buntu kër sëñ sëñ fàllu bii nga xam ne day barab boo xam ne sëñ fàlloo ko joxoñoon ne nañ fi màggale ñun ñu am tawféex yi di ko fi dundal kon lii daal mooy kàddu yu may ubbee di di di sant lim bi nga xam ne moom lañ jàng ba démb waaw boo ci dollee tey jàng nañu ñaari téeméeri kaamil ak juróom-ñeent fukk ak ñeent mu fekk si la la ma waxoon mooy ñaari junni ak ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñeent loolu boo ko ci boolee mu doon ñaari junni ak juróomi ak ñeent fukk ak juróom kon jàng nañ fi ba bisub tey ñaari junniy kaamil ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett yu jotewul dara ak junni ak té juróomi téeméer yi nga xam ne bis bu set daara koy def kon lii daal kon jërëjëf sëñ Mamadou Xaban yàlla na la yàlla fay ci daraje sëñ Tuubaa kàddu yi laa doon ubbee nuyoo boobu nag ñi ciy jiital Cheikh Mouhamadul Mountakha ñaan suñu borom mu yàgg fi lool te ànd ak wér ñu jël kàddu gi di ko jële ci ndigalul Serigne Xaban moom Cheikh Mouhamadul Fadal sëriñ bi di sant bu baax a baax a baax ak a gërëm balaa boobu it ñu jéggal ma ci kàddu yi ñuy yëkkati ci seen kanam waaye rek day loo xam ne nii sëriñ bi da cee jotoon ndigal ngir am njàngum kaamil alquran yoo xam ne nii dañ koy def waajalee ko màggalu Tuubaa gi ñi nga xamee ne ñoom ñoo ànd ak sëriñ bi ci liggéey bu tedd bi nga xam ne moom mooy liggéeyub alquran nga xamee ne moom mooy li nga xam ne moom la Cheikhul Xadim defoon muy comteem ñooñ ñëpp ñëw ànd ak sëriñ bi ci liggéey liggéey bu rafet rafet sëriñ bi nag ni ko sëriñ Yuusu waxee ñoom ñëpp ñu taxaw ci taxawaay bu am solo boo xam ne nii bis bu set gox yi kenn ku nekk dafiy ñëw jàngi fi jàngin woo xam ne nii jàngin wu yéeme la te sell lool waaye li ci gën a yéeme moom mooy xaaruñ ci dara nag nga xam ne sëriñ Touba rekk lañ koy def te yàlla tax loolu nag mooy dëgg dëgg li sëriñ bi wootee santale googu nag moom moo tax ñi di ko def tey sëriñ bi nag wax ne mu ngi leen di sant bu baax a baax a baax mbooleem waa daara yépp ci seen taxawaay yu rafet yooyee nga xamee ne taxawee nañ noonu lay ñaanalee nag Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàggu fi lool te ànd waaye tamit nag mu di ko sant bu wér ndax gaa yi ñu ànd liggéeyal Cheikhul Khadim ku la ko wax ne war nga koo sant looloo tax sëriñ bi di ko sant bu baax a baax a baax. sant googu nag mu di ko jaarale ci cheikh Mouhamadul Bachir moom cheikh Abdoul Khadir mii toog nga xamee ne moom mooy ndawam di léppam ñëw ànd ak moom ci liggéey bii nga xamee ne tey liggéey la boo xam ne nii dañ ne woon dañ koy jéem a tëj waaye alquran moom kenn du ko tëj ak digganteeg sëriñ bi kenn mënu ndax sëriñ bi ci boppam daa moom alquran ci moom woo xam ne nii day sax ba dàkk tam lii kan yadum la wax looloo tax kon. li ñu tàmbali woon la rek di ko jéem ngir maanaam lépp rek lan ca lan ca fas moom mooy mu nekk loo xam ne ni lu sëriñ bi nangu rek la loolu la Cheikh Mouhamadou Xabdaan moom Cheikh Mouhamadou Fadal doon jiim sëriñ bi wax ne nag ñu ngi lay seedeel bu baax Cheikh Mouhamadou Bachir ci daara yi nekk biir Touba gi yëpp seen taxawaay yu rafet yi nga xamee ne taxawee nañ ay gox yoo xam ne ni bis bu set ñu ñëw fi ànd ak ñun ci taxawaay boobu mboolem gox yi nekk ci biir Touba bis bu set kenn ñëw kenn kenn ku nekk ñëw na fi dañuy bañ a lim rek waaye kenn ku nekk ñëw nga fi am ab lim bu limu limu boo xam ne ne jàng nga ko fi waaye nag bu ñu jàngee ba pare yi nag waa ci njiitalu Serigne Youssou mi am taxawaay bu am solo boo xam ne ni taxawe nañu ndax lañuy def ñoom it lépp dañ ko doon def te yàlla rek tax bu noppi nag li ci gën a yéemu moom mooy xaaruñ ci kenn xaaruñ ci dara yi nag di ko def yàlla rek tax lañ ko doon defe ñi fi doon jàng ñoom ñëpp ñu leen di taxawu taxawaay yu am solo. ñu ngi nuyu bokk yu tedd yi fi teew yëpp ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha mu fii Serigne Touba yàlla fi yàgg lool te ànd ak wér ba mottali mboolem naal yi nga xam ne am na ko ci liggéey Serigne di tàmbalee nuyu bi ak siyaar bi nag ci Serigne Mouhamadou Xabaan Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadou Fadil di cant Serigne ak i ngërëmam. ndax liggéey bii kat xam naa sëriñ bi si leeral na la ko waaye itteel na ko lool kawe na njortu ci moom itam dem na ba àgg ci ne ndax ba nga déggee kàddoom daanu rek ndax daanañ ko woote nu ne ci fàttali waaye ni ko sëriñ bi waxee ren rek mësi su ko wax ndax bu jëkkoon dañ daa jàng ay kaamil laata bis bi rek waaye sëriñ bi mu koy woote dana fii ba bis ba lu waaye man ci jàng alxames mooy li ci ëpp solo doon àgg ca bis bi ba kàddum daanoo rek xaaroo ci kenn nga daal tàmm di jub loolu nag tawféex la jula samaam dencaloon sëriñ su wax naa ne kàddu seere yi Seex Mamadu Muntaxa wax ci liggéey bi ak ni mu ko nawee ni mu ko kañ ak ni mu ko tagge kon loolu doon na sëkk ndax kuy liggéey sëriñ Tuubaa ba ki fi nekkee sëriñ Tuubaa santal la boppam gërëmal la boppam seereel la ko boppam lu mu doon sëkk waaye loolu lépp nag sa tawféex te mbirum sëñ Tuubaa li ci am solo mooy lépp moom kenn doonu ci dara ndax sa mag ju tedd ja sëriñ Maam Mor jàmbaar lool ci yitte taxawaayu pëstéef bëgg sëñ Tuubaa ba bi mu fi bàyyi ko ñëpp dañoo amul sopp ngir xalaat liggéey bi ak ni mu ko daa seetoon ñu daa taxawoo waaye sëñ Tuubaa moom lépp dafa ne ci loxoom ndax fam fam yem rek fa nga tàmbalee jëm kaw ndax liggéey bii nga def kat màggal gi yàgg nañ ko def waaye ren la ba kon doo feex la ñu la Sëriñ Tuubaa dencal te ñëpp wuyu la ci it la ci wuyu si mooy wane ne la Sëriñ Tuubaa nangu ndax taalibe yi moom la siñ Saliou daa wax rek fa xolub taalibe yi jëm fa la xolub Sëriñ jëm bu ca dara ci àdduna nekkoon wala dara ci lu bokk te si mi néew kon bari na fi ñoo xam bu ma def gis kon nag loolu sëriñ bi ñu ngi la ñaanal nga yàgg ko taxaw te yàgg ca déggee ngërëmu Sëriñ Tuubaa liggéey bi ma gis na ko ne xam fu mu tàmbalee waaye xam fu mu yem ndax lii tàmbalee ren ji li ma fi gis ci daal takkutoo gi ñu takkutoo ak pësteef bi ci am naa daa dem ba pinc yëpp di ko def ci sa kilifteef kon nag yàlla nga ko yàgg tax te gën cee dañuy gërëm Sëriñ Tuubaa ndax alxuraan kat mooy toolu Sëriñ Tuubaa toolu rek ku ku ku cee na na la wóor ne ak ku mu mën a doon rek yow soo mu moom kon ñu ngi sant bu di sant yi Sëriñ ndax day jàmbaar dëgg dëgg jàmbaar baat ba ko Cheikh Mouhamadou Mountakha waxoon keroog ne ko ne ko jàmbaar ngeen waaye jàmbaar dëgg lañ am naa kilifa bu mag bu ma ci waxal barki dem ci njabootu suñu tubaab yi mu ko laaj ma ne ko jébbale nañu këru xasida goo xam ne ñàkk nañ ci ñetti milliards te yàqalu de ñu yëkkatiwaat téeméer bi ngay jox ko suñ bi àddiya te yàqu dara ci seen waajtaayu magal loolu nu ko nit di àttale sax dana jaaxal te ñoom bu nopp gan gu sëriñ bi agsi gu sëriñ bi am yebal ko ci ñoom man mi bu ma gan bettee ma yebal ko ci ñoom keneen noonu kon loolu ñoom li ñuy liggéey sax xanaa pàgguteeku suñu tubaab waaye doomu aadama attanu ko bi fi jëwriñam ji di nekkee dama ko daa fu ma ko mosaan gisee dama ko daa toog ne ko yow doxeenu malaayika ngay doxe doxeenu malaayika rek mooy ñaari aay yi laa yaasuuna allaha ma amaruhu wa yafalu ma yamur ak laa yasbiquunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maluun loolu na gis si woon kon dañ koy sant moom Sëñ Yuusu di ko sant si Tuubaa di ko santale Sëñ ndax jàmbaare lool am na yitte ju kawe ndax bi fi suñu aat yi bàyyi ko jàppaan jàppoon naa ne ak njàmbaaram dëgg-dëgg mais ñoom ci fexe ba taawu liggéey bi saytoo ko mu bañ a wàcc waaye fu suñu aatu yemoon rek weesu na ko lu bëree bare bare bare bëri kon nag loolu kon la ma waxoon Cheikh Mahmoud Mountakha bañ génnee ca liggéey ba di ko yéem ba may wax ne ma wax naa sëñ Yuusu ak sëñ Ahmadu Badawi ne nañ dajale xaside gu ci ne baxru ba ci sëñ Tuubaa taalif ñu ko def ko yenn xaside te def ko yenn mu nosu daane woon nag yërëm naa rek waaye am du wàcc ma ne ko man de sëñ bi xool naa sëñ waaye doon naa ko yéem sa waaye sëñ Tuubaa laa yéem ndax woo na ma li muy def moom doomu aadama attanu ko kon te mën naa koo seere mën naa koo seere ci biir mën koo seere ci bit te lépp fu kàddu sëñ bi daanoo du ci xalaat loolu mooy li gën a jafe wa ma huwa salbul ixtiyaar li xusni sanni bi kon dañ ko ñaan di ñaari waa daayira bi yëpp ndax yéen baat bi ma Cheikh Mouhamadou di wax ne ma ñooy soldaare yoon wi saa suy waxtaanee man ci biiru néeg it lu mu may wax bokk na ca lu mu gën a losol mu gën a nekk sa ndimbal te loolu xam naa ko ndax mépp mbir mu ma jaaxal bu ma ko tegee seen loxo danañ ko def ba defee ko la ko sama jot kon dañ leen sant bu baax di ñaanal nag di sant mboolem sëriñi daara yi nga xam ne ñoo fi ñëw ñëpp ba bis bi tàmbalee ba nëgëni te ni ko suñu su waxee wër sa dagg bi màggal gi jàll ndax sëriñ tubaab mooy borom alxuraan kon sëriñ daara yi ñoom ñëpp xam nañ ni ne ahlul quraan hum ahlullahi wa xaasatuhu comme suñu borom defal naa jooju tawfeex rek te sëriñ Tuubaa ku xam na ne ku koy liggéey ci alxuraan moom sooyu kon ñoom ñëpp ñu ngi leen sant ci tur Cheikh Maodo Mountakha di leen ñaanal mboolem ku fi ñëw ànd feeg say daara yëkkati fi am alxuraan def ko addee Sëriñ yàlla ko Sëriñ Tuubaa nangu ñoo koy def itam yàlla ñu am kattan ak wér ba ci def ren bu déwénee ñu wees ko lu bare bare foog naa ne nag man la keneen xuraan tam di ko njëdoo moom li ko mën a firi bari na ndax li ñu fi jàng ba weer wi tàmbalee ba nëgëni boo doon war a adduna ba mu jeex. amul fenn foo xam ne am na fa boo xooloon Tuubaa li ñu fi bind ci kaamil amul menn réew moo xam ne am na fa lu ma ñetti junni daara ci benn dëkk adduna sépp amul fenn kon loolu wane na Sëriñ Tuubaa li mu ne moo ko moom la alxuraan loolu rek firnde boo xoolee taalibe Sëriñ Tuubaa yi njabootu Sëriñ gi nit ñi wattu alxuraan ba adduna sépp jeex amul fenn foo xam ne am na fa ak ni mu leen yombee moo korkatu duñ ko fàtte am na ci ñoo xam sax mën nañoo toog lu yàgg duñ jàng alxuraan te duñ ko fàtte loolu taw feex jël taw feex la jëlee Sëriñ Tuubaa defal ko ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. asalaamaaleykum wa dafa wax ne sëñ Mamadou Bassir mii dafa bokk ci biir suñu liggéey bu màgg bii am ci cëru boppam nee na li ko lii li lii lisaanu xaal ji mooy xasida ak Matlabul Fawzeyni yi nga xam ne moom lañ fi indi fii ci jataay bi ba mu koy bind. boobu defe naa at mi nga xamante ne sëñ Saliou ci la fi toogee at moom ci la ko bind muy mat la bu fay seen mbindum loxo moo xam ne boo ko gisee xam ne kéemaan ci la yam man nag ginnaaw teg na ko sama loxo jaayante naa ko yaatal incha allah. jërëjëf euh, comme ni leen ko waxee rek euh, ñu ngi fii ba tey si jumaa ji feggoog kër sëñ Fallou Mbacke nga xam ne dañu fay fekk euh, ñi nga xam ne ñoom ñu lañ dénk li nga xam ne lépp lu si Hizbut ñu ngi feggoog ki nga xam moom mooy Pape ko ñett yoo xam ne ay ni moo waral màggal gi ak kaa moom lañ fi jàng sëñ ñu ngi lay ñi nga xam ne ñu leen di bàyyi xel saa su nekk di leen siyaare di leen ndokkeel ci weeru tedd wi jërëjëf Pape Assane euh, question bi ñuy njëkk laaj rek mooy wàccaayu màggal gi nga xam ni moom la fi isbu yu def tey ñu mu nekk loo xam ne dañuy bëgg a laaj ba xam première édition la li nga xam ni mooy kaamil bi nga xam ne moom lañ fi doon jàngam déet. waaw du première édition moom ndax euh, màggal moom ku xam isbu tarixee xam ko ci moom euh, ñun dañuy def buñ duggee weeru tamxarit rek dañuy tàmbale njàngum alxuraan di ko waaj a màggal loolu naka jekk dafa bokk ci activité daara ji waaye nag leen mbir moo gis day yokk di màgg di gën a am doole di am ay innovation kon ren jii dafa am euh, ay innovation yu mag a mag ndax euh, sëriñ Mouhamadou Xabaan bu sëriñ Fallou mi nga xam ne moom la sëriñ Muntaxa di taxawaloo daara alxuraan yi ci Touba bi mu lëkkaloo ak daara ji ci njàngum alxuraan bi dafa mel ni gën naa yaatu gën naa am doole kon nag nii mu toll nii ak ni mu amee doole nii moom Euh, ren ji lay doog a am waaye terewul liggéey bu yàgg la boo xam ne euh, euh, li muy firi rek mooy liggéeyu Sëñ Tuubaa moom day gën a dox jëm kanam waaye amul tànk ginnaaw kon li ak tànku kanam la rek ci li fi daan am naka jekk. Hmm. tey suñu bëggoon a xam lim bi nga xam ne moom lañ fi jàng si kaamil ak boobaak léegi si màggal ba màggal gi teroog léegi ñaata lim day toll. waaw loolu de xam nga Touba moom gox bu ne mi ngi jàng waaye bu dee ci barab bi nga xam ne moom lañ nekk di ko taxawu ba bis ni ki tey ji jàng nañ fi ñaari junni ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett muy 2548 kaamil yoo xam ne bi weeru magar feeñee premier jour bi rek lañ tàmbale moom ni mu ko organisé itam moom moom sëñ Momadou Xabbaan daara yi nga xam ne ñoo nag Touba te mat ñetti junni daara alxuraan mu ngi tuub mi ngi biir Touba loolu yaakaar naa lu kéemaane la moom lay def bis bu nekk am gox bu ñëw dañ naan tey jii waa Ndindi ñoo aaye ñu indi ci lu wàllu turu ci 40 29 daara ñu ne tey jii waa Saam ñoo aaye tey jii waa waa waa ndaam ñoo aaye tey jii waa Gédé ñoo aaye noonu la ko daan defee nga xam ne léeg-léeg nga gis ci koo xam ne day indaale 46 daara alxuraan ñi indaale 30 ñi indaale cinquante euh, noonu lañ ko organisé moo tax ñu mën a jàng lim yi léeg-léeg ab daara ñëw fi jàng jàng téeméer ñi jàng ñaari téeméer ñi jàng ñetti téeméer ak lu topp euh, ba biñ dajee tey kon euh, ñi fi ñëw tey jii rek nga xam ne njabootuk sëñ Masamba Kanni bu lañ tey jii jàng nañu 294 kaamil muy ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent kon yaakaar naa liggéey bi daal noon la demee. Euh, li dernière question bi mooy liggéeyu Hizbut Tarqiyyah si màggal gi ndax ñu bëri dañuy dégg Hizbut Tarqiyyah waaye xamuñu solos liggéey gi ñuy def si fii si Touba. waaw waaw Hizbut Tarqiyyah de moom dafa am liggéey bu sax dakk euh, liggéey boobu nag màggal gi da ci da ci da ci mooy xol bi dañuy wax ne màggal gi moo nekk ci xolu suñu liggéey. Euh, dañ koy waajal at lañ koy waajal it mooy buñ màggalee tey bu subaaree dañuy tàmbalee di waajal bi ci bi ci topp niñ koy waajalee nag mooy ci dalu gan yi ndax euh, xalif général des Mourides bi daara ji di sosoo ba tey euh, ba am makkaan fii Touba Euh, képp ku fi mës a nekkal sëñ Tuubaa di xalifaam gan yi nga gën a fonk ngir ñu topp too leen dalal leen xamal leen yoonu mouridisme isbu tarxiya euh, moom lañ leen di yóbbu kon dinañ fexe ba dal yi ak hébergement bi tegu ci yoon ba nga xam ne kenn ku ci ne gox ba nga bàyyeekoo wala dëkk ba nga bàyyeekoo boo ñëwee Tuubaa dañ la dana la dalal foo xam ne dana la fàtte fa nga nekkoon di la toppatoo di la bernde loolu jotiwul dara ak njàngum alxuraan mi nga xam ne wax naa leen ne la un avant la ñuy tàmbali nga xam ne kon dinañ jàng euh, alxuraan bokkul itam ak njàngum xasida ndax isbu tarxi am na kuréel xasaayit yoo xam ne fii ma wax ak yow lum néew néew euh, àgg nañ ci juróom fukki kuréel xasida ci biir réew mi ak ci bitim réew danañ ci tànn euh, chaque année lum néew new 40 yi ci gën a performant indi leen fii ñetti fanu màggal yi de huit heures ba ba ba ba beneen bis ba nga xam ne mooy bis bu mujj ci weeru màggal amul pause dañuy toftaloo kuréel bu ñëw jàng te xas dañuy jàng du bokk ak ba sa morom di jàng mélodie yi ngay jàng bokk ak say mélodie sa borom sa morom di jàng loolu lépp nag buñ ko boolee ak njàngum alxuraan bi noonu la bu Hizbut Tarqiyyah di dundale màggal ak dalal gan ñi ak it eh, euh, étranger mooy gan yi nga xam ne dañu bàyyi ko bitim réew te ku war a xam sëñ Touba daara ji dina génne ay téere ay journaux ay journal def ay émission def ay conférence ngir ñi nga xam ne dañoo bàyyi ko ci yeneen réew te war a xam yoonu muridis ñu mën koo xam ci tënk daal bu dee màggal gi moom istarx ya noonu la koy defee ak di toog nag di joxe te bañ am xaj ak seen mooy danañ toog képp koo xam ne euh, nekk nañ fa di dundal bis képp ku fa ñëw itam dañ la taxaw diggante lekk ak naan euh, daara ji itam képp ku fa ñëw dinañ la taxaw diggante lekk naan ci tënk daal loolu mooy liggéeyu daara istarx ya ci màggal. ñu bàyyi nga tàggatoo Pa Assane tàggatoo Ah, waaw xanaa sant bu baax rek ak ñaanal Cheikh Modou Mountakha Mbacké gudd fan ak wér eh, ndax gis nañu moom taxawaay bi mu taxaw ci réew mi ak ci àddina ak ci umma jullit ñëpp rawatina nag ci sàmm ndono li nga xam ne mooy héritage bi nga xam ne si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul bàyyi na ko fi kon ñoo ngi koy ñaanal gudd fan lool ak wér ba lépp loo xam ne naal na ko te gis nañ naal yu rëy yi nga xam ne naal na ko muy boo tuddoon ab université rek fii rek ngay gise benn jëm boo xam ne ab comité rek la jiite songu université boo xam ne def na ay milliards laa ciy def ngir xam-xam kon kooku ku jar a ñaanal la kon bu ma doon ñaan moom loolu laa koy ñaanal muy gudd fan ak wér. jërëjëf euh, jërëjëf Pape Assane moom la ñu àndaloon moom moo yoroon li nga xam ni moom mooy organisation euh, daara ji fii nga xam ni moo yemoo si jumaa ji jàkkaarloog sëñ Fallou Mbacke xam naa nag euh, dañuy dox léegi ànd ak yéen dem daaray kaamil dégtal leen la nga xam ni moo xew daaray kaamil ndax ñu bari ñu ngi dégg daaray kaamil waaye xamuñuy solos daaray kaamil tey nag dinañ ànd ak yéen suñu jógee fii léegi dem daaray kaamil dugal leen benn par benn waxtaan ak yéen si bibliothèque boobu nga xam ne moom la Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul def incha allah sa jumaa ji rek eh, laataa ñu fay jógee nee woon nañ leen nañuy jubal si fii si daaray kaamil fas yéene si ak waxtaan ki nga xam ne mooy sëriñ Ousseynou Diathara mi nga xam ne bokk na si ñi nga xam ne ñoo yor fii daaray kaamil ñu fas yéene ko bàyyi mu nuyoog téléspectateur 7TV ñu ànd ak moom posé ko ñenn si ay question ngir mu sénégalais yi mën a xam lan moo waral daaray kaamil incha allah rabbi sëñ Ousseynou ñu ngi lay nuyu waaw ah, asalaamaaleykum warahmatullah mbokk yi ñu leen nuyu leen ziar bu baax di am mbégte lool ci seen teewaay fii ci daaray kaamil Euh, yéen waa 7TV di rafetlu seen liggéey ak seen taxawaay leen dal jàmm ak salaam ci barab bi ak magal gi ñu nekk ak Cheikh Khadim. Euh, euh, question bi jiitu mooy lan moo waral Daaray Kaamil. waaw Daaray Kaamil li ko waral mooy xam-xam mooy wane Sëñ Tuubaa ak xam-xam ndax Cheikh Khadim léppam xam-xam la woon ndax biñ ko waxee dangay ngay jihaat ni ko dangay ngay jihaat moom da jihaat waaye li may jihaat mooy xam-xam ak ragal yàlla inni ujaahidu bil ulumi wa tuqaa beneen bi bi ñu ko laajee trésor am mooy lan man la mooy compte banque am mooy kanzil kitaabu wala hadis wala adab laa jamu fidde wala jamu zahab trésor am boobu mooy euh, moom doyale dara lu alquran ak xam-xam ak ay teggin euh, loolu moom la jëmmal fii moom dajalewul xaalis dajalewul or dajalewul jama kon euh, alalam moo nekkoon xam-xam ak ragal yàlla. Hmm. kon li ko gën a waral Cheikh Abdou Mbacke bi nga xam moo créé euh, biñ koy laaj lan moo tax nga créé daale Kamil dana woon benn danañ dem ba jëmi jamono duñ gis doomu Sëñ Tuubaa wala duñ gisati kum defar su ko defee rek ñu delluwaat ci am mbindam man cee defar woon a xam loolu bokkoon na ci tax mu def ko beneen bi tamit euh, tax mu def ko ay delluwaay nit ki ndaxte nit ku baax koo gis mu mu mu mu nekk fi rek am na ay delluwaay delluwaay mooy li fi bàyyi mooy lim liggéeyal yàlla liggéeyal ko yoon bi salaa salaam mooy alquran mooy hadis mooy ay teggin sëñ Tuubaa nag liggéeyam moo doon nekkoon tagg yoon bi salaa salaam ci xaside yi ak ay salaatu ala nabi def yi def ay téere xam-xam yu bare bare yoo xam nit ñi war dañoo xam kan mooy yàlla kan mooy yonente diine def na ci ay téere yu bëree bëri bëri kon daaray kaamil la barabu barabu gindewukaay la barabu leeral la ci wàllu xam-xam. Euh, jërëjëf barab bu barab buy leeral la si wàllu xarxam loolu la sëñ Ousseynou wax euh, sëñ Ousseynou tey suñu bëggoon a xam organisation daaray kaamil lan lañ si mën a xam. waaw organisation bi moom Cheikh Abdoulaye Mbacke mi nga xamante ne moo ko amaloon ci atum 1977 moo ko organisé parce que da koo def ay xaaj ay parti Euh, partie bu njëkk bi lépp lu jëm ci alxuraanul karim bi nga xamante ni njabootu Serigne Touba gi bindoon nañ ko wala ay sta ay sëtam wala ay njabo ak njabootam wala ay taalibe bindoon ko ci seen loxo moom la yàlla foofu tuddee ko saal saal xuraan nga xam lépp lu jëm ci maanaam euh, ba maanaam euh, mbindum loxo mi nga xamante ne ay alxuraan la mi ngi foofu nga ci ñaari saal bi muy saal xaside saal boo xamante ni saal bu mucc ayib ci wàllu mbindum Serigne Touba ci xaside yi ci téere xam-xam yi ci ay témoignage ci liñ ko waxal lépp mooy nekk saal boobu nga dem ci beneen xaside fekk saal culture générale beneen salle bi muy salle 3 lépp lu jëm ci wàllum téere xam-xam yi jigéen bitim réew fànni xam-xam yooyu yëpp kon lu nekk murid ak lu nekkul murid mi ngi fi lu jëm euh, ci barab bi pour mbokk yi nga xamante ne ay taalibe lañ bëgg a gëstu ci xam-xam ñëw fi xam kon salle culture générale ba fànni xam-xam yëpp lu jëm ci wàllum hadis yi sallallahu alayhi wasallam lu jëm ci tafsir Quran lu jëm ci tradition coran lu jëm ci science médecine agriculture kéetu xam xam yooyu yëpp tey am xam-xam boobu ku bëgg xam-xam boobu bu ñëwee daara kanam dana ko fekk kon bàyyiwut benn xeetu xam-xam boo xamante ni ñu di ko soxlawoo ci euh, Touba wala ci réew mi wala ci àdduna. Hmm. Euh, jërëjëf euh, tey suñuy xamaat rek li ñuy laaj mooy lim bi nga xam ni toll na si sept tonnes cinq cent si li ñu xam est-ce que lim boobu yëpp mi ngi fii si Daara Kamil xam nga ñu bari dañ koy wax sept tonnes cinq cent nag ay wax la yoo xamante ni teguñ ko ci maanaam lu leer ndax ku fi ñëw wax ko rek maanaam ñu dañ lay jubbanti. parce que dañu la jubantee mooy 7 euh, tonnes 500 yooyu ñu ñuy di wax euh, tëkkuñ ko ci mbindum Sëñ Tuubaa ndax euh, ñu doon 7 tonnes 500 buñ ko buñ ko buñ ko doon wax ci ay bagages yoo xam ne Sëñ Tuubaa indiwaale indiwaale ko bu ñu ko peesee moo toll noonu waaye mbindum Sëñ Tuubaa moom kenn mënut a xam ñaata la ndax lim bind ko kenn xamul ñaata la lim bind ñu gis ko tamit kenn xamul ñaata la kon bu ne rek euh, nombre bi nangam loolu moom mënuñ ko mënuñ ko xam exact kon nombre boobu ñu wax 7700 euh, nekkul loo xamante ni luñ mën a luñ mën a luñ mën a confirmer la luñ mën a dëggal la parce que gisuñ ko ci benn texte gisuñ ci kenn wax gisuñ suñu wax ko ndax euh, bu ñuy natt suñu mbindum Sëñ Tuubaa waruñ ko natt ci côté quantité war ñoo xool quantité bi li ñoo war a xool valeur bi li mu bind valeur bi dëgg dëkk li muy jëriñ lu mu ñu mën a jëriñ loolu la ñu war a ci la ñu war a xayma suñu bopp waaye waruñoo xayma ci ay nombre di ko di ko def ci ab lim kon valeur bi mooy li euh, lim bind naka lañ ko mën a jëfandikoo ba mën koo jariñoo ba mën cee jël ay solution ci réew mi ba àdduna bépp mën ci jariñoo ñu mën ko espérer parce que li mu bind ay projets yu bëree bëri la loo xamante tey bu ñu ko jëfandikoo woon rek waxuma la Sénégal waaye àdduna bépp mën naa jag ci jegin woo xamante ni lépp a yomb kon nombre woowu euh, di gis nañ fi ñu ko def gis nañ ñu ko bind ay wax la yoo xamante ni amuñu benn euh, benn source bu ko mën a jëlee liñ mën a jànge foofu rek mooy ni mbindum sëñ moom mooy lépp lu jëm ci wàllum maanaam ka valeur ñu xam valeur bi man koo jëfandikoo mën ko jëriñoo loolu ëpp solo ñu xam nombre bi moo tax bi ñu ko laajee lan mooy sa karaama lan mooy sa kéemtaan mooy karaamati xattu yat yi sama kéemtaan mooy li ma bind kon kéemtaanam boobu kenn mënut a xam xam ñaata la ci nombre boo xamante nii xam nañ ko fi. Hmm. Euh, loolu lu mat a leeral la comme ni nga ko waxee nday dañuy faral di dégg sept tonnes cinq cent sept tonnes cinq cent dégg ngeen sëñ Ousseynou lim leen leeral nee na leen lim bu lim bi kenn xamul ni mu toll moo tax dañuy question bi ñuy du ñuy tëjee euh, ñu gis sëñ Mouhamadou Mountakha jox ndigal waa Hizbut ñu ubbil leen daaray daaray xasida kërub xasida yi euh, dañuy bëgg a laaj rek ndax kërub xasida yooyu noonu su noppee daaray kaamil dañ koy déménager yóbbu ko foofu ba xam waaw xam nga yoonu moom lépp lu gis yokkute la Euh, këru xasida yi ak fii benn la am nga foofu daa tuddee këru xasida fii mu tuddee ko këru alxuraan daara kaamil euh, waaye nag maanaam lépp lu yoon mu def rek dafa am fu mu koy fu mu koy fu mu koy jëree ndax sëñ Muntaxa jékk jékkoo rek créé këru xasida euh, gëstu na ci xam ko waaye fii dafa làmboo këru xasida làmboo këru alxuraan lamboo këru xam-xam kon bu dee Hizbut Tarqiyyah fa ñu nekk mooy li jëm ci wàllum xasida Seexul Xadiim bu dee daara kaamil nag bibliothèque la comme bibliothèque la boo xam comme bibliothèque la ndax lu jëm ci alquran lu jëm ci xasida yi lu jëm ci xam-xam yi kon moo ëmb lépp kon fii mën ne mooy ndey ji mooy ndeyu bibliothèque yi nga xamante ne moo am ci yoonu murid parce que fii euh, bibliothèque bi Cheikhul Khadim bokkoon na ci ay yéeneem euh, am amaloon ci Jurbel ndax boo demee Jurbel ci baraag yooyu euh, nee nañ ay téere fa nekkoon pour lépp ñu amoon yéene yi taxawal fa bibliothèque yéene jooju rek ab Abdoulaye ñëw jëmmal ko fii kon këru xasida ak fii benn lañ ndax lépp Sëriñ Tuubaa a jëm waaye nag nday ji fii la ndax li tax ñu ne nday ji fii la mooy li meññi xaside yi li tasaare xaside yi euh, fii lañ ko jëmmalee fii lañ ko génnee ndax Cheikh Abdoulaye Mbacké moo ci sonn loolu taxaw ko waaye ñaari kër yooyu du génn kër maanaam du ñaari kër génn kër la ndax ñu nekk foofu ak ñu nekk fi benn la kilifteef gi génn kilifteef la muy xalif général des mourides kon daare kaamil ak këru xasit yi benn kër la maanaam benn partie la ci daare kaamil këru xasida ndax mën nañu benn partie la mooy euh, xasida yaa ngi ci biir daare kaamil daare kaamil mi ngi foofu kon loolu yëpp benn la kon këru xasida yi ak fi moom benn benn la du ñaar jërëjëf sëñ Ousseynou ñu bàyyi la nga tàggatoo waaw kon di sant bu baax waa 7TV euh, leen ñaanal yàlla suñu borom màggal gi ñu dëgmal yàlla fekk lañ ñu ko jàmm te lépp luñ fi ñaan suñu borom ko di leen rafet lu baax seen liggéey bu sell bi ngeen liggéey liggéeyu xam bi ngeen liggéey di leen ñaanal yàlla suñu borom lépp luñ fi def si Seexul Xadim yàlla fayal ñu ko ëllëg ñu ko tey bu déwénee ku fi ñëw suñu borom yokk la ñaan yàlla suñu borom ñi nga xamante ñi ngi ñëw yàlla may yoonu jàmm ak salaam mën a delluwaat jàmm ak salaam te lépp luñ fi ñaan suñu borom nangu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Eh, jërëjëf eh, sëñ Ousseynou mu nekkoon sëñ Ousseynou Diatara mi nga xam ni moo nekkoon moo yor responsable fii nga xam ni mooy daaray moo yor coordonnateur u daaray kaamil fii moom nañ sekkaloon a waxtaan wi mu doon leen leeral waxtaanu daaray kaamil li nga xam ni moom la fi sëriñ bi ak li nga xam ni moom la fi sëriñ bi bind ñu teg ko feek yooyu yëpp eh, leeral na ko xam naa si kanam tuuti incha allah rabbi dinañ àndaat ak yéen seen programme asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu